ñëw naa fi xàmme naa la kon tout le temps fii ngeen nekk in quoi waaw fii lañ fixé ah pour le moment yow mu dégg ni bëri demee woon nu demee comme premier jour kon booy toog nañ seen kër quoi instant yi gars ñu ngi ñuy jàppale liggéey bi bu baax a baax. Ah, naan problème bi. waaw vraiment ñu ngi ñuy jàppale <laughs> ah, macha allah on est là pour ah, aussi ñoo ngi gis seen liggéey. gars yi aussi ñoo ngi gis seen liggéey quoi. vraiment li liggéey ak Croix aussi gis nañ geen jël benn femme enceinte ku ëmb. gars yi dugal ko si oto yi police ko hôpital loolu tamit geste bu rafet la gars yi ngay salué quoi. ah. waaye léegi dëkkoon. daf moom daf feebaroon. moom assisté benn malade. ah ok ngeen yóbbu ko si quoi. waaw ah, macha allah dafa ah, ok. ñun daal ñu ngi nii daal. ok ñu jàppale population bi daal ñun on la là pour daal. ah macha allah toujours nag ñu ngi derrière daal. ok waaw. d' accord mais yéen nañu yàlla jàppale rek. amiin incha allah baax na.